Eh, incha allah dinañ dugal aussi ay gendarme yi nga xam dañoo subir ay euh, attaque yi leen mussa Fall def ak toroxal yi leen Moussa Fall def donc euh, jot nañu rece recevoir ay information jot nañu recevoir aussi euh, gendarme yi nga xam ni ñoom ñoo xam Moussa Fall liggéey ak Moussa Fall kan mooy Moussa Fall ñoom ils vont vous le dire les gendarmes je pense que nit ki baax na laajal ay mbokkam wala ay jegeñaaleem waaye daal bu dee da ngay ci ñoo xam ne xamuñu liggéeyuñu fa jegewuñ ko di la bëgg a wax naa nit ki baax na moom tegal fële te xam ni euh, tagg baaxumaam bi yëpp dañuy recevoir waaw Moussa Fall nag ku yor alal la c'est multi milliardaire ci sale boulot rek la dëkk waaw yàgg jënd gaay nag boo seetloo souvent euh, ay ay jou ay journaliste rek ñoo koy tagg mais doo gis gendarme bu ko tagg doo gis kenn ku ko jege Moussa Fall xam Moussa Fall kuy tagg Moussa Fall loolu musu doo ko mus a gis donc euh, ay journaliste ay jëndkat euh, ñoo xam dañu leen jënd rek ñooy taxaw di wax ci Moussa Fall euh, naan dañuy jéem a rafetal waaye ñi ngi ñëw ci Moussa Fall te dañuy dugal ay gendarme nag ay gendarme direct ak seen photo ñuy wax ak yéen wax leen kan mooy Moussa Fall ak lan la leen Moussa Fall def ak xeetu toroxal bu leen Moussa Fall def ak ñu leen fa Moussa Fall jëlee ak ñi Moussa Fall rey ci seen kanam lépp dinañ leen ko wax yaakaar naa ni boo bëggee xam daal nit da ngay laaj ay mbokkam wala ay jegeñaalem waaye ñuy taxawaalukat yii di wëndaalu ñi ngi di for fii forfait yaakaar naa ni man boo ñëwee sax ci man naan ma kan mooy Moussa Fall di ba reta dama lay laaj yow loo bokk ak Moussa Fall dèjà yow doo doo juge doo avocat yow nga ne journaliste nga sa wala nekk nga war a informer kese moo war a nekk sa ngay ñëw naan da ngay défendre <laughs> l'indéfendable kooku dañ la war a laaj loo xamal Moussa Fall dèjà yow yow lan nga ko xamal da dëkk moom gendarme nga da nga kaa mos a liggéeyal bokkoon ci bureau da lan la dara defoo ko donc taxawaalu taxawaalu force information bëgg a ñëw défendre koo xam ni ñi ko gën a jege xam nañ ni dëmm la ñu ko gën a jege mu ay col muy colonel Abdou Aziz Ndaw wax na ci geneen gendarme gis ngeen fi junni gendarme yu daw yu Moussa Fall naan rey ñu daw wax partout lu leen Moussa Fall def donc vraiment <laughs> gars yi war yab nañ ñu quoi waaye nañ dem seetaan euh, la euh, Euh, du moins euh, ki li nga xam ne moom mooy communiqué bi pour ministre ministériel bi incha allah et on va revenir ñu tojal leen kan mooy Moussa Fall ci gémmiñu gendarme yi ñu wax kan mooy Moussa Fall ak nan la ñuy rayee doomu jàmbur yi nan la Moussa Fall rayee doomu jàmbur yi li ma leen di xamal daal mooy Moussa Fall est un danger perpétuel danger bu graaw la un criminel à gage que Moussa ci boppam moo rey booy yi jamonoy Ablaye Wade gendarme yi rey boy y a eu douze morts avec l' avènement de Moussa Fall bi nga xam ne ñu ngi ko def gendarme ci l' affaire Adji Sarr y eu quatre vingt sept morts ci loxo yi Moussa Fall ak Bokar Yàgg quatre vingt sept te ba léegi lu leen Moussa Fall waxoon moo am nee na leen rey leen booy yi et je vais vous protéger contre la justice te ba léegi protéger na leen parce que amul benn gendarme. bu ñu jàpp daf leen wax les ordres c'est à exécuter tirez sur les manifestants tuez-les et il y aura pas justice nag ña rayoon booy jàpp nañ leen ka rayoon booy bu Sangalkam gendarme ba ka ma nga ca kaso jàppoon nañ ko ña rayoon xale ya ña rayoon Mamadou Diop policier ya jàppoon nañ leen mais ak Moussa Fall 87 morts y a jamais eu d'arrestation y a jamais eu ñu jàpp benn criminel ndax Moussa Fall moo leen wax rey leen booy yi te dinaa leen protéger bokk na ci ñi tax ñu tëgg loi amnistie bi moom Moussa Fall mu rawale ay njabootam rawale ay nitam rawale ñëpp c'est un criminel criminel très très très dangereux un criminel lu tax nag bëggul démissionner parce que mois de mais bii Macky Sall da ko yokkaloon benn at pour mu def sale boulot pour mu rey sénégalais yi créer fi guerre loolu moo fi bàyyiwoon Moussa Fall loolu mois de mais bii lay jeex donc loolu moo tax Moussa Fall xam ne bu démissionné day ñàkk mu ne xaaral mu muñ ko ñi ngi ci avril mois de mais lay jeex donc Macky Sall moom Moussa Fall dafa retraité woon Macky Sall moo ko yokkal benn at pour mu rey gars yi Moussa Fall nag général bu mu ko doonee ci l'affaire Adji Sarr la ko doonee foofu la jógee doon général dinañ leen expliquer famille Moussa Fall nan la def ba dugg ci famille Macky Sall ba mujj ko def général ba mujj di rey nit yi ba suñ jonn yàlla tey kenn kenn kenn kenn gisu ko ci muy gendarme wala homme de tenue bu ñu jàpp wala bu ñu incriminé donc Moussa Fall sa place CPI la cour pénale internationale kon à bientôt incha allah on va parler de Moussa Fall qui est Moussa Fall d'où vient Moussa avec la complicité de gendarmes yi nga xam ni moom moo leen rëbb bugg leen a rey ñii mu tëj leen ñii mu toroxal leen ñoom ñëpp jël naa seen avis te di ngeen leen déglu incha allah donc à tout à l'heure peace and love bu paree rek euh, buñ communiqué ci ko euh, ministre yi euh, dinañ ñëw ci Moussa Fall donc voilà di leen bëggee leen sant on a tout préparé avec les les gendarmes aussi qui son là qui ont travaillé avec lui et qui veulent participer qui veulent vraiment bu expliquer ce qui est réellement Moussa Fall euh, c'est pas euh, bu ci xajee mun nañ ko def léegi sax sinon euh, de tout façon ça dépend de vous mun nañ ko def léegi comme mun nañ bàyyi ba ba mu pare ñu def ko bu mu ci mën a doon rek voilà waaw jàpp leen daal Moussa Fall c'est un c'est un criminel un criminel reykatu ngeen laaj ko ana Idan Perez ana Gabi Perez lu mu doon lan la lan moo ko waral ñu bàyyi au commandement de la gendarmerie seen place dem jox ko Gabi Peretz ak Eden Peretz en face palais de la république ñu sànni leen ñoom almadi dem leen laaj loolu Moussa Fall. boo leen buggee xam kan mooy Moussa Fall laaj leen ko waa Ngaay Mexe boo leen buggee xam Moussa Fall laaj leen ko waa section de recherche boo leen buggee xam Moussa Fall laaj leen ko palais waaw koy boo boo leen buggee rek ñu continuer ko ça dépend de vous léegi vite yi ñu ngi xaar gendarme yi ñu ngi xaar. 22 heures c'est bon d'accord donc on va faire ça on a tout préparé en tout cas a fait trop de dégâts matériels et voilà bu àdduna bu mu neex ba ngeen fàtte ni neex ba ngeen fàtte ni Fulbert Sambou était un militaire bu ñu rey ci reyin bu ñaaw bu leen fàtte ni bu mu neex ba ngeen fàtte bu mu neex ba ngeen fàtte ne DJ Badji était un gendarme bu leen ko fàtte et je vais parler de son juin bi nga xam ne da ko réeral tout ça je vais parler aujourd'hui tey rek mu leer kon vingt deux heures incha allah euh, ñu ñu ñëw dem vingt deux heures ñu ñëwaat na fi ñëpp nekk na àdduna yëpp partager mbir yi vingt deux heures incha allah on va vous parler de Moussa Fall peace and love à vingt deux heures incha allah